buy njor maire dinañu taxaw xëy na ONAS tamit dan du ñu seetaan yaakaar na ndax ñun li ñu am mooy suñu doolee ak suñu xalaat te fas nañ koo jox askan bi te xanaa du ñu seetaan ci loolu bëgg nañ tamit ngeen dimbali ñu ngir yàlla si ay moto pompe ak carburant parce moo na mën a yeexal liggéey bi su gis nga dañuy duggaat ci koñ bi ñi nga xam ne ñooñu xaw a tane ci koom-koom ñu dem laaj ki 5000 laaj ki 10 000 bu ñu sonnee ñu doog woo maire maire nañu yabal ñu ci naw naw sax dañoo mujj miinante xam nga kon loolu ñu ngi la ci tàllal loxo bu baax di ci tàllal loxo ñëpp di la remercier parce que ñun tamit bi affaire bi amee yuuxu nañ ne amul benn autorité boo xam ne nii ñëw na épaule ñu waaw maa ngi loolu waaw xam nga léegi léegi bi ci topp bi ci topp nañ ñu nañ ñu respecté jox ñu cër jox ñu cër loolu rek lañ bëgg. jërëjëf rafet na léegi monsieur le ministre. moom nga ne mënul ñàkk. ministre. ñii daal. Mm-hmm. man euh, defe naa waxoon naa ko avant muy ñëw. Mhm. wax naa la ko monsieur le préfet. Mhm. c'est-à-dire euh, ñetti quartier la Kër Niang Ndaamaatu Ngélémou Ngiraane xale yi ci fi nekk. ay association la ñoo xam ne dañoo am volonté maanaam dañoo maanaam daaw jéeg bi ma leen di wax nañ seet ma indi seen carte defal leen contrat deux mois mm-hmm. at mu ma def ko nag mais mënulu leen dara nag mm-hmm. dama leen di wan yéene rek mm-hmm. ak seen di leen wan ne jàmbaar ngeen yéen a ngi góorgóorlu ñu ñu yëg bàyyi nañ ko xel mais ñii daal ay ñaay xare lañ. macha allah ci ci wàll yëpp nag. jërëjëf waaw donc lii mu wax nag mooy coow li. les seen doléance rek moom laa le rappelé. bu bassin bi jëlee niveau dafa am boo xam ne bu ko jëlee niveau boobu bassin bi dootu jël day da koy reversé ci quartier bi niveau boobu pourquoi bu fi bu ko atteindre def ko est-ce que mooy li ma doon wax léegi kon war nañ ko kiire ba mu set ba li nga xam ne déchet bi ci nekk li mu jël occupé ci bassin bi mu génn ba nga xam ne dana jël ndox moom ah parce que bu demee a quelques millimètres yi nga xam ne moom la daan taw mu àgg ci millimètres yooyu àgg gu ci ren te refoulé na. donc kon su fekkee ne millimètres yi dem na quelques millimètres yu yu yu raw lii. dana gën a jóg donc moo tax li nga leen di wax ne leen pop. yaa may kii kon li nga wax li nga leen wax nii li mu wax nag yéen a ko dégg gëna mhm. jox na ay ndigal. nañu gaaw lu mu gën a gaaw wax nañ ne balaa alxames. juma ajjuma ñu defar pompe boo xam ne dana jël six mille mètres cubes di ko yóbbu mm. su pompe boobuy pompe six mille mètres cubes ndox mi ak si ci niveau bi mm. loolu la wax fii ñoo ko déggandoo suñu siiwaree loolu lii mu ko waxee bu ko buñ ko doxee noonu bu ndox dootu génn donc loolu lim li mu war a wax wax na ko li mu war a def def donc loolu moo taxoon moo tax léegi ndox yi ci kër yi dana euh, màkkaa ngi nii mm-hmm. woo na ma démb maa leen jox carburant bi ngeen xëy pompe yi dégg naa pomp yi mi ngi paan danañu leen jox ay pomp tey ak suba ngeen jël pompe xaar leen noppi leen xaar leen xam nga pompe pompe daaw jéeg ngeen yor ak pompe daaw xam ak pompe daaw yu bees yoo xam ne bu ngeen jëlee yu bees yi réparé lenn ci yi ngeen yor ñu ànd ànd ak yooyu ngeen mën a continuer li ngeen daan def mm-hmm. Mm-hmm. defe naa loolu la loolu mooy soli moom waaw loolu ministre bi jël na ci décision mm-hmm. dana dana leen dana indi pompe ñu lu indi man bu ma amee ñaar ñett dolli ci ngeen boole ko yi fi nekk continuer li ngeen doon def li ngeen doon def yëg na ko monsieur ministre daal euh, dama dinaa ci wax euh, dama bëgg mu def ci explication bu tuuti technique pour ngeen gën a comprendre li fi ñu jëm bu ko defee man ma jël wax leen décision yi ñu jël mm-hmm. ngeen wax lépp ànd nañ ci ak ba noppi mm-hmm. ba ca biir kër ñang la nekk mm-hmm. ndox mi jóge Daaru Xudóos di jóge Surra ak fu mën a doon ci dëkk bi fii lay wàcc te fii amul benn point barre bu nekk biir kër ñang bu dikk ci biir bassin bu gàtt dama bëggoon apporter ay précisions monsieur xam nga monsieur mi da nga wax fale ngeer nañ bu ñu wax nañu wax loo xam ne moo leer ñu bañ demee ne ñoo waxoon lii amul il faut ñu bu tawee am na niveau boo xam ne taw bi su ko eggee même bu ñu amee six mille mètres cubes regaay dina génne tuuti parce que on est en dépassement de capacité avant que pompe yi ko wàcc bu ñu yaakaar bu ñu fi defee six rek que automatiquement bu tawaatee ndox bi dootul génn ci regaay dina génn en temps mais six mille moo ñu mën permettre ñu réduire ce temps là temps maintenant bi doon génn il faut que ñu xam ko parce que on a de quatre-vingts te li ñëw de réseau réseau boobu yëpp bu jëlee na ndox en même temps sans compter maintenant euh, liggéey di pompe di fi indi fii bu tawee taw bu bari balaa pompe yi di ko mën a di ko mën a yóbbu ba mu wàcc ndox bi ko na génn ci regard yi mais simili yi moo ñu permettre ñu atténuer ko du yàgg loolu laa bëgg nag mu leer xam ne bu ñu fa simili le problème da koy réglé loolu laa bëgg ñu maintenant xam deuxièmement dans le cadre du projet monsieur monsieur y a Kër Niang am ñu def ci Kër ngi mi ngi nii def nañ fi benn bassin pour en cas boo amee trop ne mu jaar ni euh, euh, dem mettant dem mettant ngelamu c' est pour éviter wàcc yi ko. waaw moo tax ma ne ci bi la c' est à la euh, comme bu fekkee ne projet bi mi mi ci projet bi canal bi defar nañ ko. Mm-hmm. mais fële tant que le bassin de ngelamu parewul yëpp duñ ko mën a ubbi. xam mais dans les perspectives année prochaine incha allah bu ñu mettre en en nga xam ne bu feesee fii day wàcc fële dina ko dina ko équilibré. y' aussi am na ay pompes boo gisee fii am na deux. bâche de pompage yu ñu tabax yu bees foofu des pompes de 1000 mètres cubes yoo xam ni dans le cadre du projet moom lañ fay def donc loolu loolu la pour au moins atténuer li ñëw li ñëw maintenant hmm. maintenant Kër Niang donc daal loolu laa bëggoon apporter comme may may may am mbégte ci kàddu gi ngeen yëkkati hmm. ak ni ngeen ko waxee surtout engagement bi mu àndal waaye worma bi hmm. loolu dafa am solo wax naa ko léegi ngiraa neen ni ma ko waxee jeunes yi ngiraa neen noonu laa leen koy waxee di leen di leen remercier et di leen féliciter di leen encourager parce que da ngeen dafa xew dal ci seen kaw laata ngeen di xaar kenn yegg si ngeen nekk ci ba noppi seen seen maire nekk ci di leen jàppale fi état waroon nekk mooy ci ouvrage yu mag yi comme fii ñu nekk état nekk ci wax naa ni bi ma fii ñëw yaa a à deux mois ma visité chantier yi lépp nekkoon chantier xëy na déggu leen ma moo tax dama koy baamtuwaat dañu yegg si chantier yu bari taxaw bi ñuy man bi may def sama passation de service teguma ci ñaari semaine fii laa njëkk a ñëw Touba ànd ak ñii ñu visiter chantier yu bari taxaw parce que xam nga période transition ñaari régime lu bari taxaw entreprise yu taxaw parce que fayuñu leen woon seen ay xaalis ak yooyu li ñu njëkk a def ni urgence am na nawet jege na nañu fexe nu ñu koy wàññee jafe-jafe yi. ba ma delloo dakaar fépp fu ñu war a def gouvernement bi kenn toogatul ba ñu génnee ñu jox entreprise yi ñu reprendre reprendre nañu di def liggéey waaye temps bi ci des taxoon na lu bari mënul woon jeex moo tax ma ni leen nawet bii ñu dugg comme météo nee nañu ndox dina bari météo wax na ko ci kàttanu yàlla mënuñu ci dara loolu kon ma ni leen nawet la boo xam ne urgence yi la ñuy fexe di ko régler dinañu amaat ndox réseau yëpp sotteegul raccordement yëpp pareegul kon jafe du ñàkk. nañu ànd comme nii ngeen ko commencé moo tax ma am ci mbégte te te mu dal sama xel parce que temps wu ñetti weer boobu di metti ñun dinañ ci def lépp lu ñu mën a def suñu kéemtalaay kattan dinañ ci def dinaa leen wax léegi lu ñuy def en plus de lii ngeen wax mooy fii ñu nekk daaw mois de juillet mois de juillet la ñu nekk daaw ci parce que fii station bi capacité am deux mille huit cent la mois de juillet la ñu indi yeneen renforcer ko ba mu yegg six mille mois de juillet kon tardé wuñu ñu ngi ci mois de juillet. bu buñ sañoon def ko juin waaye wax naa leen jafe-jafe yi amoon ci entre passation yeeg installation yeeg yooyu fi mu nekk wax naa leen ni tey la samedi yi ngeen gis seen ginnaaw mooy pompe yi ñëw nañu. lu dëgg pompe yi waroon ñëw ñoo ngi nii ñeenti pompe buñ ko boole yi fi nekk mooy yegg yóbbu mbir mi six mille yi maire wax. dafa am raccordement yu manqué ak ay ay tuyaux yooyu ñu soxla mooy matériel yeeg équipement yi lundi bu soobee yàlla ci lañ ko entreprise bi di yónnee. nee naa leen diggante lundi mardi ak mercredi lépp lu ñuy def ci installation nañ ko ci def jeudi au plus tard bu soobee yàlla nañu ko taal pompe bi commencé fonctionner. comme ça buy taw comme ni mu ko waxee gis nga réew lu mu développé développé gis nga yi réew yu mag ni ñu amee problème mu ndox cent millimètres cent cinquante millimètres fu mu wàccandoo ci une heure de temps amul benn réseau ci àddina boo xam ni mën naa rëy ba ndox mi doo ko gis. dina fa nekk deux heures trois heures quatre heures de en fonction ni réseau bi toll parce que ndox may wàccandoo lu bari lépp war a dugg ci ay pax yu yu rëyul dina jël temps pompage bi bu commencé fii temps boobu lay wàññi bu ndox mi wàccee dina des tuuti mooy refoulement boobu ñuy wax waaye pompe yi bu fonctionné du yàgg ci biir mbedd yi mu yóbbu ko bu ko ndox mi yóbboo ba mbedd yi dégagé wu day des toujours ci biir kër yi foofu la seen liggéey nekk te foofu moo tax bu ma leen gisee ak ngeen nekk ay tenue nii de travail tey kenn demul waaye sol ngeen loo xam ni wóor na ma yéen a ngi ci waar wi foofu la ma neexee parce que li ñu soxla ci citoyen buy taxaw pour dimbali goxam ak dëkkam yéen a ngi ci moyen ngeen soxla te ñun dinañ leen jox moyen bu soobee yàlla balaa ñu fiy jóge tey jii danaa jox euh, fii Kër Ñang euh, Ngelemu Ngiraaneen ak Ndaamaatu groupe ya fa nekk mooy ñeent yi maire wax ni gox bu ci nekk am na fa ay jeunes yu organisé wu di liggéey ku ci nekk di nga am ñetti moto pompe yu bees tax ak 300 litres carburant yoo xam dinañ la ko jox. Ah du dëgg tey jii balaa mu fiy jóge ku ci nekk di nga am ñetti moto pompe ak 300 litres de carburant comme ça ngeen continuer dimbali ñu parce que ñun ngeen koy defal ñun ñoo leen ci remercier di leen ci encourager mm-hmm. ñetti moto pompe ak 300 carburant yooyu. dafa am lu ngeen wax lu am solo yooyu xëy na dinañ ko teg ci yenn mbedd yi muy wàññi ndox mi mais dafa am kër yoo xam ni ndox mi dana ca des toujours te xëy na ay ay électropompe yu gën a oyof yooyu ngeen di soxla pour que bu ngeen duggee ci kër pompe mu génn nga jox ko groupe B mu dugal ci beneen kër groupe C dugal ci beneen kër ngeen koy passante noonu ni ngeen di organiser woo loolu semaine bii di ñëw dinañ ci wut aussi ci électropompe yu oyof yi daal di leen ko yónnee mënu moo leen wax ñaata lay doon mais ñi jot moto pompe yi ñett yi ku ci nekk di nga am ay électropompe yoo xam ne semaine bi di ñëw di ko jot bu ko defee yooyu ci biir kër yi ngeen koy dugal pour mën a pomper ndox mi man dama bëgg ñu constituer équipe ministre bi ak ay service technique monsieur le maire ak yéen communauté yi parce que monsieur le président ci loolu la woote bi mu waxee journée nationale de nettoiement dafa ni bëgguma ci dégg politique bëgguma ci dégg ku fer fii ak ku bokk fii ak ku mel ne citoyen sénégalais laa woo citoyen yooyu mooy lii ngeen di def sur le terrain moo tax ñu koy rafetlu xam nañu ni metti na la ma gis fii dugguma fii waaye xam naa li ngeen wax doy na ma ba ma séenee ngiraa neen la ma gis xam naa ni metti na nit ñu bàyyi seen kër lu metti la waaye dañuy doog a ñëw situation yi demee nii ñu ngi ci mois de juillet xëy na sax yàlla suturaal nañu ba nawet bi commencé rek ñu commencé gis problème yi daf ñuy permettre ñu corriger ko. lii lu am rek da nga ciy jël li ci baax parce que da nga ciy jël jàngat ay leçons su fekkee mois de juillet la ñu gis jafe-jafe yi jox nañu temps wu ñu corriger ko avant ñu dugg ci taw yu métti yi. parce que bu ñëwoon ba mois d'août taw yu baree ndoo yegg seen ndoo fekk dara sottiwul dana métti waaye lii dinañ ko rectifier ma leen di gërëm encore une fois bu baax a baax. bu ñu paree fii am nañu beneen bu ñuy visiter balaa maa dem dinañu toogaat ñun ñi monsieur le maire ak équipe technique ñi ñu évaluer lii ñu gis lu ci ne koñ bu ci ne ñu xam la ñu fay def ak contact yi ngeen nekk ñun ñëpp dinañ xam parce que maire yor na lépp dégg nga ñu suivre loolu ñun nee nañ leen guddeeg bëccëg man xam ngeen ni bu ngeen ma seetloo Facebook sax bu ma ci nit tàggee damay réagir comme seetlu ngeen loolu dañ ma koy wax sama WhatsApp ñu bari am nañ ko te damay tontu lu ma mën lu ma jot damay jox samay équipe ni leen seetal leen ma ko donc suñu bunt yëpp ubbil nañ leen ko parce que lii di projet bii ñun du président ba Bassirou Diomaye Faye moo mën a régler mbir mi premier ministre Ousmane Sonko mën na koo régler ministre de l'assainissement mën na koo régler askan wee ko mën a téye te ñun nee nañ leen lépp lu ñu war a def ñun en tant que seen autorité kenn duñu ci soññ dañ ciy nekk yéen nag bu fekkee fu ñu nekk ñu gis ngeen nekk ca lu bare dinañ ko mën a régler léegi bu dimbalee nag foofu laay daanelee bi ñu ñëwee ay projet commencé na danañ ko yeggali te nee naa leen lépp lu ñu fi fekkoon nañ ko yokk fa la amoon la ñuy tàmbali même mooy pompage yooyu bu ñu defee 6 000 itam bu ñu nee nañ ko yokk dama naa leen fexe leen ñu yokk ko mu dem 7 000 wala 8 000 lu ñu soxla rek danañu yokk dara du wàññeeku bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn ci nawet bi. moom laa ne bëggatuma taxaw incha allah bu yàlla dogalee ni man maay nekk ministre de l'assainissement ba beneen nawet loolu ci loxo yàlla la nekk. bëggatuma en tout cas ñaanuma ko yàlla te dinaa def lu ne lu ma man pour que duma taxawaat ñu naan inondation bi wala nii wala en tout cas fi problème yi daan am loolu dootul am xanaa feneen leneen génn fa ñu dem toppatoo loolu parce que nag développement réew bu amul doole. boo nee problème bi dama koy régler ba dootul am fenn da ngay wax lu neex yii ñu xam dinañ ci taxaw président am na ay projet yu rëy a rëy daf ma ni assainissement ak ndox. xam ngeen bi ma njëkkee ñëw Touba assainissement taxu ma woon jóg xool naa projet assainissement yi mais ndox mee ma taxoon jóg parce que dañ ma ne woon ndox mi temps yooyu jafe na nit ñi mënuñoo naan ba ma ñëwee ànd ak yi ñu dugg ci biir kii bi ci waar wi yëngal li ñu war a yëngal yaakaar naa ni am na yu yu ci tane te jeexul jeexul dama leen ne loolu ñu defoon commencement rek la buñ ci paree incha allah dootuñu waxati wax problème mu ndox ci Touba noonu lañ ko bëgg a jàppee tam ci wàllu assainissement bi président nee na sur priorité la ci moom te bu nawet bi jeexee ci la ñuy yeggali projet yii commencé mais fépp fu ko waroon am ci Touba te amu ko ñu defa fa assainissement ba nga xam ne ndoxu ndoxu ndoxu taw dootul sonal nit ñi. donc loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko jox ci message pour dalal seen xel pour wax leen ni benn la ñu ñoo ànd man je vous fais totalement confiance ma bëgg ngeen jox ñu confiance xam ni naam yeneen a ci ndox mi metti na waaye man nelawatuma noppalootuma parce que mooy sama cër te xam naa ni loolu lañ leen amal ndax fi ngeen jaar ak li ngeen sonn. c'est pour que ñu teggeel jafe-jafe askan wi te loolu ci la ñu nekk guddeeg bëccëg suba ngoon mooy remercier aussi monsieur le maire parce que dama ni lii ñuy lijjanti muy réew mi ak ay ay ay inondation état ak collectivité locale il faut que ñu joxante loxo tey ci suba bi ma nekkee Thiès ñu lancé ay travaux benn canal boo xam ne toog na ay at kenn mësu ko curé bi ñu ma ko waxee ma ne leen ëpp naa def il faut que ñu def ko dama woo maire ville bi ak maire commune ba ñu ànd taxaw ma ne nañ leen ko bokk donte état mooy indi ay moyens waaye damay bëgg woon askan wi ni yéen maire yi yéen a fi nekk mu yëkkati leen jox seen seen autorité ci kanamu askan wi noonu rek laa bëgg ñu liggéeyee ko